yàlla ci barke Serigne Touba suñu borom dimbali ñu ñu tàntal ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp itam suñu borom defal ci ndam ak ngërëmu Serigne Touba lu ëpp li ci daal di ci rafet jox wax ndax ñi seqal bi kenn ku ci ne xam na ne boppam lay jëfal xam na ne li muy sàkk itam

ndaje lislaam yi am ci àdduna ginnaaw màkket màkket ak mukarrama màggal Tuubaa mayis naa wax ne mooy ndaje bu ëpp ci ndaje julli ci àdduna ci Afrique nag kenn nag kenn ne moo ci jiitu comme loolu jëlee naa Sénégal kon lu rëy la di loo xam ne itam am na ay jeexeet yu bare bare te li ci ëpp di ci wàllu diine gi nga xam ne moo ko tax a jóg ndax muy jege ak nit ki la diggam ak boroomam ndax cant yàlla gi nga xam ne moom la ñu Sëriñ Tuubaa santaane loolu bokk na ci li indi ci wàllu adduna yi itam ci jamono màggal bi am ay jeexee yu bare bare yoo xam ne dana ko indi ci réew mi di ko indi ci at bi kon bis la boo xam ne saa su at seeti waris na ko waajal bu baax a baax ci dayoom ci ni ko yàlla tollal ak li nga xam ne moom koy jural Sénégal ci biir ay njàng yu bare bare muy loo xam ne ñii xayma natt nañ ko wax ci ay nattuwaay yu kawe kawe ci loo xam ne dana koy jural yooyu ci ay jafe kon li ci góor di taxawee muy lu leen war waaye nag ñu ànd ko ñun àndi ko rafet li nga xam ne war na leen ci ci saytu kaaraange nit ñi ak di saytu li nga xam ne moo leen war ci ñoom màggal gi bokk ci kon ñu fas yéene dugg ci ci biir waxtaan bi ñu ci war a leeral rek ak ñu ngi ko seqal nga xam ne war nga ci jox kàddu mu jox la kàddu nga leeral li nga xam ne moo aju ci loolu ba waxtaan yi jeex. ñu defaat ko ba lépp àgg na te rafet jot ci suñu doon danañ ci liggéey ndax am na ay fànn yu bari yoo xam ne waxtaan nañ ci sëriñ Ousmane Diop bu jig bañ tëdd ko yoo xam ne wet ci ne war nañ ko leer ñu topp ko xool jéegi yu fi ñu ci topp kon ñu joxaat kàddu gouverneur moom mi nga xam ne mooy jiite rajo mu àggalee waxtaan bi